Ndianda doon ab gox ca commune bu Nguéniène ci département bu Mbour doon dalal ndawi ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire tànku ndaw Zahra Iyane Thiam yooyee li ko waral mooy taataan sàkkuteefu askan bay yeewoo ca gox boobee te yëngu ci activité yu bari te wuute te it di jànkonteek yenn ci ay jafeñ-jafeñ di yëngu ci transformation di yëngu aussi ci élevage volaille ñun na suñuy jafe-jafe moom dama koy tënk ñu man li ma buggoon mooy ñu dimbale ñu ci formation professionnelle ñu mun a taxaw ci transformation bi dimbale ñu ci conservation ñu mun a conserver ginaar yi nga xam ne dañ koy yar te amuñ fuñ ko jaayee ñu mun koo conserver ba muy jeex dimbaluñ ci forage boo xam ne moom lañ mun a jàppandu pour suñu maraîchage mun a taxaw dimbali ñu su aussi ci formation gestion pour suñu liggéey gën a yomb. mosuma gis ministère bu wàcc ci suñ commune man ma fekke ko tey am nañu fu ñu exprimer woo luy suñu métit luy suñuy tiis lii suñu jafe-jafe. suñu xel de dal na vraiment bama ma commencé di liggéey ba tey mosuñoo am. occasion bi ñu am nii tey mosta am ñu ngi koy door a am tey te aussi suñu xel dal na ñu ngi yaakaar daal ñu ngi yaakaar tàllal leen loxo bugguñu gunge ñu jàppale ñu taw yi comme bëriwutoon teen yi dañuy dem léegi ñun biñ commencé jëmbët bay arrosé ba mu dem ba si diggi saison bi ci la teen yi jeex moto pompe yi mënatuñoo jot ndox yi léegi ci lañu suñu mat bagage yëpp dee amatuñu luñ arrosé ñu mujj bàyyi saison bi mu jàll noonu. gasal ñu forage jàppale ñu ci matériel loolu Njanda muccul benn yoon ci mbas mi di coronavirus tax seenum koom-koom nërmeelu jigéen ya fay yewoo yëg ko bu baax. profito itam ci teewaayu ndawi ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. ngir fësal seeni doléance corona bi it yàq na lu bëri ci suñu liggéey parce que temps boobu kenn dematul kenn dikkatul te fekk nañu dugal ay ginaar jënd suñuy marchandise kenn dematul ñu tëj ñu yëpp tëju loolu mun nañ ne suñu xaalis boobu dafa yàqu dañu war a recommencer à zéro te kontaan naa si ñoom parce que ñoom association mooy doole parce que ni ñuy def kenn kenn dawal boppam amul njëriñ mais buñ ñu associé woon ñu. ba ñu nekk en groupe bokk koñ kenn du ragalati moromam ndax dañuy miinante ndax association bi donc mun nañu gërëm le président Macky li muy def pour le développement de du Sénégal parce que jigéen ñi bëgg nañoo liggéey am nañu bugg a liggéey am vision bi mais xamuñ nu ñuy jaar léegi li ma leen di ma tënk yenn yi foog ñu may ñu matériel yoo xam ne boo amuloo jaayit am foo ko conserver won ñu yoon bi parce que def nañ formation eau de javel formation savon def jus def yëpp mais amul suivi on nous a donné que des attestations loolu soriwul dañu bëgg nag suñu jàngee ba am ñu won ñu diplôme bi defal ñu ko en diplôme boo xam ne nit dina soxla beneen dëkk ñëw nañu defal leen ñu jus mbaa defal leen ñu saabu mbaa defal leen ñu eau de javel ñu defal leen mun a jaay si dëkk ak dëkk ñoom it bu ñu gisee leneen ñun ñu andi càkkri beeg araw yi fonde yeeg yooyu yëpp ak cere ji lépp mun nañ koo def mais ça manque les moyens et les matériels former ñu gunge ñu parce que nit ki nga jox xaalis te xamul nu mu koy fructifier bu yàggee mooy andi gestion yi diig loo jàngul doo doon sëriñam bu ñu encadré woon ñu ba ñu xam li ñuy def foog naa suñ fi ñëwaatee dinañ kontaan. di ma leen bëgg tey ministre bi bëgg mu dégg ko. tey jii li nga xamante ne mébét bi mu mébét ni dafa bëgg ñëw wàccee ko jàppale ko ci commune bi vraiment bu ko amee commune yi Nguéniène jigéen ñi bu ñu ko amee dina wàññi jafe-jafe lu bëree bëri bëri bëri ci ñoom ndax dégg ngeen li ñu wax lépp lu ñu wax nañ jàmbat nañ tey jii man damay tëdd sama kër a nga ne la tey ay 4 heures du matin ngay dégg oto yi tey jii boo taxawee gis nga ak minicar yi taxi yi jigéen ñi kese lépp koom-koom dem uti 4 heures la wax de 5 heures. ay minicar yuy jóge Joal di dem ba Caajaay da ngay gis ay jigéen ñuy yéeg sax ci kaw ci porte bagage yi ak seen i pañe jën lépp maa ngi koy gis lépp muy mëbët boo xamante ne bii mu nekk ci sama bopp bi ñu di ma ko wax ma di ko poser les problème dans la commune avec le maire avec les conseillers bu ñuy voter tout le temps sama problème yëpp loolu la. jàmbat yooyee tàbbi ci noppi ndawi Zahra Iyane Thiam yi ñoom ñooñee fas yéene gën a gunge. waaye itam gën a tàggat askanu njànda ngir ñu gën a yew ci économie sociale et solidaire kàddu yooyee jur yaakaar bu yaatu ci askan ba yeewoo ca boobule gox. gannaaw ba ñu waxtaanee ak ñoom ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, promotion économie sociale et solidaire muy benn modèle entrepreneurial boo xam ne dafa bees te ñu jàpp ni modèle la boo xamante ni war na war a mën a développer Sénégal à travers euh, femmes yi ak ndaw yi bi ñu waxtaanee ak ñoom ci loolu xamal leen li nga xamante ni moom moo moom moo am. ci au niveau du ministère muy la loi d'orientation sociale de l'économie sociale et solidaire bi nga xamante ni assemblée voté nañ ko ci ajuma bi ñu weesu muy loo xamante ni innovation bu rëy la et de taille loo xamante ni dafay wone ni euh, acteurs économie sociale et solidaire yi mën nañ leen euh, regrouper ci benn cadre boo xamante ni cadre euh, juridique la institutionnel boo xamante ni dafa ànd ak ay bagages yoo xam ni dafay am solo ñu vulgariser ko ñoom ñëpp ñu xam ko te tey jii def nañu ak ñoom loolu xamal nañ leen lan mooy texte boobu euh, cadre boobu lan moo ci nekk waaye xamal leen lañ leen tamit ni beneen loo xam ni am na ci biir euh, texte yooyu muy seen label plateforme seen label ci la bokk donc mu nekk euh, loo xamante ni ñoom ñëpp mën nañ ci dugg mu am ay euh, euh, maanaam ay proposition mu am ay kii yu mucc ayib yoo xamante ni ñu ngi leen di ko proposer loolu la ñu waxtaanee ñoom ñëpp waxtaan nañu ak ñoom loolu ñoom ñëpp nag ci seeni soxla ñu wax ñu ñoom lan la ñu bëgg déglu nañ leen bu soobee yàlla madame la ministre mi ngi préparé ñëwam fii alxames te dana ñëw wax ak ñoom jàkkaarlook ñoom ca seen bëgg-bëgg te bëgg-bëgg yi bañ ko xoolee weesuwul encadrement weesuwul accompagnement weesuwul formalisation parce que gis nañ ni loolu dafa fi xaw a sooxe tuuti waaye weesuwul aussi bu fekkee ne mën nañ leen jàppale à travers ay financement wala ay subvention bu fekkee ne mën nañ ko def ñu def ci te am nañ ci yaakaar te madame le ministre bu soobee yàlla alxames bu ñëwee na jàkkaarloo jigéenu commune ñeen ci seeni soxla pour développer le Sénégal ñun li ñuy def moom mooy dañ leen di dañuy teg euh, maanaam yoon yoo xamante ni ku bëgg financement dinañ la mën a orienter nga dem ami ji financement ndaxte euh, ku ne ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire xam nga ni am na ay ay ay ay ay banqaas yoo xamante ni ñii dañuy toppatoo financement bu moo ko jëlee benn muy Euh, euh, mi direction microfinance mi ngi ca euh, bu ma jëlee beneen bi muy promise bi toppatoo financement islamique mi ngi ci donc loolu yëpp bu ñu leen ci boolee ak yeneen ni xarale yoo xam ne teg nañ ko ay plateforme yoo xamante ni dañuy wut ay partenaires yu ci nekk def mise en relation organiser leen ñoom ñëpp mais nag organisation boobu ku ci nekk dañuy dellu ci terroir ba nga nekk li fay sa spécialité nga mettre ko en valeur ça veut dire que ni bu ñu paree ci loolu yëpp disparité yi am ci zone bu nekk président Macky Sall loolu la bëggoon corriger te à travers l' économie sociale solidaire à travers la loi d' orientation sociale mën nañu def correction disparité yooyu yëpp ba ñëpp bokk yem ci li nga xamante ne moom moo am ci Sénégal ñëpp gis ci seen bopp.